moo tax mu ne waman xalita képp ku jaxase fil qiraati ci jàng yi muy jàng moo xam ca fatiha ja la moo xam ca saar la mu jaxase ca bi kalimatin ci baat baat boo xam ne min gayril quraan bokkut ci alquran jàng ba ci kanam nga dugal ay baat yu bokkut ci alquran moo xam loolu mi ngi la arrivé ca fatiha ja wala mu arrivé la ca saar wa su boobaa sajada na sujoot ba'da salaami gannaaw bi mu sëlmalee ba pare après sëlmal rek lay root su joot toog su jootaat toog ba ca après door a taaya sëlmal wa in kaanat bu nekkee nag min alquran ni ci alquran li mu jaxase su fekkee ci alquran la bokk bu doon léegi dañ koy wax dafa runge di dal ci fatiha ba ci kanam mu runge dali fële door a ñël del siwaat kooku falaa sujooda déet sujoot allahi di ko war ñu ne faw mu ne ah, illa an yataxayara ndare mu soppi allah fa baat aw yufsida ba muy yàq maanaa maanaa ma su fekkee na baat xuraa u sabaani nii lañ koy jàngee moom mu jàngee ko beneen façon bu wuuteeg booba te saa yu baat yàqoo ñaareel maanaa yàqu ah su fekkee loolu de moom dafa ko arrivé loolu dañ koy jàppee muy yokk ndax dafa wax lu bokkut ci su boobaa nag kon dafay sujjoot li ñuy tuddee baada salaam gannaaw bi nga xam ne ni julli gi jeex na ba pare moo tax mu ne kon fa yes gi day sujjoot baada salaam yi gannaaw sëlmal bàyyi na wax jooja ma ngay dugg ci mbiram gémmentu ndax léeg-léeg nit kii julli lu mel ni tusubaar wala ge gémmantu xaw rofu su fekke gémmantu gu oyaf rek la yàqu dara ci njàpp la yàqu ci julli ga waye bu xawé diis nak ba xamatu fi imam tollu xamatu yow timi fi nga toll d'abord mom sa njàpp li sa julli ga timi li nga xamone yàqu demal nga dem jappi hat jema ñew royat ci iliman su fekke fekko julli ga jeex su fekke fekke nga julli ga jeex nak nga commencé wat sa julle bop motax mu ne waman naasa ku gementu fi salati ci julli gémmantu gu xoyaf fala sujud li di ko war waaye wa in saqula bu diisee naw mu xoo nelaw ya rek aada day baamu salaata julli ga wal wutu a ak njàpp la ndax kat fi nga gémmantoo mu diis xamuñ li nga fi def kon dañuy jàpp ne njàpp la moom na li nga xamagum ci julli gi yàqu na demal nga jàppeaat ta sosaat julli ga ca commencement bu imaam jeexal a gut nga kàbbaar roy ca gannaawam boo fekkee mu jeexal nga sosaat sa julleeg bopp loolu mooy atteeb képp ku gémmantu gaar gu diis ci biir julli bana wax jooja mi ngi wax onk ku feebar xam nga ñaareel nit bu feebaree bëgg di julli buy jug ñaareel wala mu bëgg root ne ma ngay sujjooti wala mu bëgg rukkoo ñaareel da nga dégg muy binni di wax u um, ngir maanaam métit wu nga xam ne dafa nekk ci moom kooku nag lay wax ne loolu bu ko defee te tayut ko jéggal nañ ko ko moo tax mu ne wax wa aninul maridi wonk ku feebar di binni wonk yooyu muxtafarun luñ jéggale la nga déggee ci nag booy wonk te fekk dara dalu la yaa ko tay rek mën naa am sax rek gu xëpp la loolu dañuy jàpp ne da ngaa yokk soo ko tayut dangay ngay sujjoot baax de salaam ndax yokk nga si julli gi lu ci bokkut soo ko tayee nag moom julli ga dafay yàqu kon loolu mooy àtte képp kuy onk te fekk yaa ko tay waaye wut feebar duwut dara duwut aw métit léegi nag mi ngi wax moo tax mu ne wata nax naxu xeddartiku li darurati ngir lor kooku moo tafarun luñ jéggale la walil ifhaami su fekkee déggalee tax nga def ko munkarun luñ xaraamal la waaye wala tabtulu du yàqu salaatu julli ga ci moom maanaam da nga yeyoon guru ba bëgg a sóobu ki julli nga galaxndiku ndekk am na lu tag ci sa boli gi nga dem ba ci biir mu bëgg laa arrivé ngay xeddartiku noonu ngir jàllale ko su boobaa loola jéggal nañ la ko ndax dara daroorietu moo tax wala xeddartiku goo xam ne lu mënta ñàkk lu la gaar la dara ra nekkut ca waaye nag su fekkee dafa am ku lay woo wala am kuy laaj dara ngay xeddartiku jublu ca bi maanaa déggale ko ko wan ko ko su boobaa loola moom lu xaraama xaraam la waaye nag li xëpp ci fuqaaw yi nee na loolu nag mënta yàq julli ga moo waral mu ne wata nax na hu xeddartiku li darurati ngir lor muxtafarun luñ jéggale la waaye su fekkee na walil ifhaam yi déggalee tax nga di ko def waaye loru taxut munkarun luñ xaraamal la waaye wala tabtulu du yàqu salaatu julli ga bihi ci moom bàyyi na wax jooja ba ca tegu mu ne waman naa daahu képp koo xam ne xoo na ko ahadun kenn fa qaala mu wax la hoo ñeel ka koy xoo ne ko subhanallah ah kooku de kuriha sibeef nañ loolu mu def waaye nag wa saxat wér na salaatu hoo ga da ngay julli ba ci kanam am ko tudd sa tur di la woo nga ne ko subhanallah wan ko ne ko yaa ngi nekk ci biir julli loolu nga wax ko de yàqut julli ga du waral sax sujjóot waaye sib nañ ko waaye nag kon loolu tamit donte lay moom maalik moom li waa madinatul munawara di jëfandikoo lay gën a jiital ci hadis bu wér te terewut sax yonentu wax na ni képp kuy julli góor nga jigéen nga ñu la xooxee ci sa biir julli ga mën ngaa wax subhanallah waaye moom dafa ne su fekkee yaa ko tay rek ci mazhabu Malik ñoom dañu jàpp ne def nga loo xam ne luñ siba sib la ba ca tegu wa man waqafa képp ku gàkk fil qiraati ci jàng wala mu yaf tax te gàggantiwut alay ci moom ahadun kenn taraka na baxi tilkal aayata boobale aaya wa qara amu jàng ma baxdaha la ca gannaaw aaya ba fa in taasara su fekkee jafe na nag alay ci moom rakaa naru ko waaye wala yanzuru bu mu xool mushafan kaamil bayna yadayhi ca kanamam da nga doon jàng fatiha ba mu jeex mu rafet lool nga jàllar bi ko rek bëgg a dal ca ala imran wala bëgg dal ca baqara te sa mokkal ca nga gag kon kay boo gaggee am ku la mën a gàgganti baax na nga continue su fekkee gag nga nag te kenn gàggantiwut la baxil aaya ja nga daloon te dem seeti fu la neex ci kaamil bi fu jege foo mokkal nga dal fa commencé jàng yaa ngi doon wax alif min mim zalikal kitab mënuloo jàll baxi ko fa te xamuloo ku la gàgganti baxi ko te dem dale ci xul wallahu mi nga mokkal la nga ca man nga def ko ca soo xamul ku la gàgganti comme xas nga am benn aaya rek ci maanaam lu dul fatiha mooy gannaaw fatiha ja su boobaa maanaam man ngaa dem nga rukkoo yi te du yàq dara ca julliga du jar tamit ngay dem di wut ab kaamil ne yaa ngi koy xool ndax gannaaw bu xa xasee jeex lu ca tegooti ci ay baat rek donte le benn baatab aaya la demee ni muddahamataani borom bu rukkoo yi tamit julli ga wér na kon nag boo xamee ku la gàgganti continuel soo ko xamut baxi ko dem foo mokkal soo ko xamut taxamu mënoo ko baxi dem dali feneen tamit baxi li nga doon def yëpp ta nga dem rukkoo yi bàyyi wax jooja ñu ne ko nag buy fatiha mu ne ah ilaa an yekkoon ndare mu nekk gag ba fil fatihati ci fatiha kooku de moom fala budda munul ñàkk fala budda del jaas bi kamaaleha ci matak fatiha benn bi mushafin ci kaamil mu xool ko aw gayrihi wala dul kaamil ni ki muy gàgg waaje di ko gàgganti muy tudd baat yañ koy gàgganti moog moom fekk bay fatiha je di jeexee waaye nag fa in taraka bu baxee minn ha ci fatiha ayatan benn aaya rek sagada day sujoot qabla salaami njëkk sëlmal wa in kaana bu nekkee ak sara lu gën a bëri benn aaya ci fatiha nga baxi ko ci batalat yàqu na salaatuhu julleem ga dama foon nag nit nag wax dëgg yàlla li mu fexee ba xam mbiram àddunaam li muy jënd ak li muy jaay la ci aju lépp lu mu gën a lu genn wàllati genn wàllam su ko defee rek dana mën a mën a mokkal fatiha su yàlla dogal nag mokkaloo far yàlla dogal ngay julli ah yàlla nattu la nga bëgg ak ilimaan ba ne yaa ngay jiite nit ña far gàtt ci biir fatiha ah buñ la gàggantee rek ngay continuer ñu lay gàgganti ngay continuer rek fekk bay saar wa di jeexee waaye yow fexeel ba tudd yëpp nag su fekkee yow gàgg nga ña nga jiite sax ñi tenewoo leen tenewuñ la mënuñ laa gàgganti kaamil ci sa kanam te boo xoolee man koo xool ubbil kaamil ba ngay xool ca fatiha ji di tudd dal ya feek ba muy jeexee waaye daal wax dëgg yàlla daal dama jàpp ne ku mokkalut fatiha ba di ca gàgg ak ñi lay gàgganteek ay yoon daal xëccoo ak ilimaan war na laa te bu la nit ñëpp dajee ne la tamit kaay jiite donte yaa tabax jàkka ji tamit nga seet kela raw nga yëkkati njiit ga jox ko ko moo mu ne kon nag loolu mooy atte ba su ko defee nag sax borom xam-xam yaa ngi wax waaye ku mokkul fatiha luy xàtteem ñenn ngi ñaari wax lañ ci wax ñu ne daal su ko mënee moom julleem yëpp nay dem di roy ñu koy jiite xam nga buñ la xasee di la jiite rek yow eh, ci mazhabu Malik moom bu dee julleeg biral la sopp nañ nga jàng nànk bu ju bu dee jullee yoole li yelu la kon sopp nañ nga jàng nànk waaye bu dee julleeg biral la nag moom jàng warul la ndax qiraatul imaami qiraatul ma'muumi su ko defee loolu lañ bëgg ñu ne nag waaw bu fekkee mokkulul fatiha te moom fa muy jullee tamit amul kenn ku ko mën a jiite luy xatteem ñu ne kon fatiha wàcc na ko waaye na kabaar su ko defee léegi rukkoo su ko defee jugee ko ci rukkoo ba sigi ba dal dem su jooti julli gu gaaw xam naa lay lay lay julli am ñu ne déedéet fokk tamit mu taxaw tuuti rek distance am koo xam ne ku mokkaloon fatiha moom bu doon jàng taxawaay ba ndax ñu ne fatiha tamit ñu ne buy nekk farata jàng gaa tax kon nag ñu ne su fekkee mënuloo koo jàng mokkalutuloo ko kay kon taxawaay ba xamatul yoon kon yow su paree rek kabbaaral rek soo mënee dara lu dul fatiha ci alquran ñaari baat ñaari aaya nga jàng ko te dem root dem rukkoo yi waaye daal nga dégg góorgóorlu nag daal ba jàng fatiha nag donte da ngaa dem ba nekk mag yéex a tuub tuub nag te mën a goo tamit maanaam del góorgóorlu ñi lay sa fatiha nga di ko jàng te julli ya ngay julli ngay royaale ke ñi lay raw ñay ñay ñay jiite di ko defaale feeg ba ngay mokkalee fatiha bu ko defee boo jullee yow kenn dana mën a julli julli gu rafet rafet kon nag att yooyu la ci borom xam-xam yi wax boo demee ci Cheikh Khalil loolu la ci wax su ko defee nag kon ba ca tegu moo tax mu ne nag boo ca bàyyee benn aaya wala lu ko boo ci bàyyee benn aaya ci fatiha da ngay sujud qabla salaam boo xëppee benn aaya julli ga yàqu na wa man fataha gàgganti xalaa gayri imaam yi ku dul imaamam ba salaat yàqu na moom moomu gàgganti salaatuhu julleem nga yéen ñaar bokku leen réseau waajee ngay julli fële yow ngay julli fële si julleek bopp joteewu leen dara mu gàgg looy waane ba di ko gàgganti baxi ko moom kay ñamu jiite ñi gàgganti ko wala bàyyi ko moom bu mu seet na muy def ba mën a matal ak julleem waaye yow nga bëgg a bàyyi sa julli gee dem di dugg sa julleeg jàmbur ga te bokku leen réseau su boobaa loolu dafay yàq sa julli ga moo tax mu ne walaa yaftaxu bu mu gàgganti ala imaamihi ci ilimaanam sax illa an yantafira ndere mu mu ñëndiku alfatxa gag ba aw yufsida ba mu yàq maanaa maanaa ma sa ilimaan tamit bu ko wan ne ko yaa ngi jiite ku la raw bu ko wan ko yaa ngi jiite ku mën a jàng ba tax na xam na ñoo xam ne bu seen ilimaan di xaw a taxaw rek ñu gaaw gàgganti ko di wane mën a jàng bàyyi ko mu dem ba xet si ci aaya bi ta dem mu areeraat ñëw man ta dem bu ko defee nag ba ñaari yoon ba ñett nag nga door di ko gàgganti loolu lañ gën a bëgg waaye bu ko wan sa mën a jàng gi loolu amut solo wa man jaala ku wëndeel fikkaraho xelaatam fi umuri dunia ci mbiram àdduna naqasa day wàññeeku sawaabuhoo yoolam ba waaye walam tabtul du yàqu salaatuhoo julleem nga dañoo bëggoon booy julli nga jël sa xel lépp def ko ci biir julli gi maanaam wëndeel ko ci sa biir borom mi nga xam ne moo la sant tamit julli waaye nga bañ nga jël sa xel mi di ko wëndeel ca soxna ya léeg-léeg nga wëndeel ko ca dépense ba léeg-léeg nga wëndeel ko ca marché ba léeg-léeg nga wëndeel ko ca koo yoreel xaalis ak ku la yoreel xaalis naam loolu de ku ko def terewut nag julli ga moom wér na maa julli ga man dootoo ko jullihaat waaye nag yool ba moom dana wàññeeku suñ la waroon a fay par exemple cent de mën naa am ñi fay la quatre ka wala ñi fay la maanaam quatre-vingt-dix wala sax ñi fay la soixante ça ne dépend yàlla may fay rek na mu jisee sa julli gi nam ko mën a fayee waa julli ga moom boo ko julli woon lépp nga xalaat ko ci mbiram àdduna tamit tusubaar jooja bu doon tusubaar mbaa tàkkusaan wàcc na la jarut maanaam nga di ko jullihaat ndax wér na nag ba da nga ca xam yool kooku moom atteeb yàlla la mooy seet na ko ca neex maanaam mu fayee ko wax nañ ne nag julli ba julli ga jeex te xalaatuloo dara ci mbiram àdduna nekk na loo xam ne lu jafe jafe la wax nañ ne saxaaba yi mos nañ leen cee tegal gëlëm yu bari ne ku mën a julli ba sa julli jeex te xelaatuloo dara ci mbiram adduna yaa moom gétt ak gëlëm gii ñenn ña benn rakkaan lañ am xelaat ñenn ña ñaar ñenn ña ñett ñenn ña ñeent Aboubacar ma ca gën a nekk jàmbaar ba mu demee bay taaye taaye bu mujj ca la xelaat ba mu paree rek ñu ne ko waaw yow mbaa xelaatoo dara mu ne xàkka ah, yi bi ma demee bay taaye taaye bu mujj laa xelaat gëlëm yii suñ ma ko joxee fan laa leen yeew ndax ñoom duñ fen lu ñu wax rek dëgg la bu doon ñun nag dañuy julli ba pare rek ne xelaatuma dara fekk maanaam lu ne ci boppam moom xelaat nga ko kabaar gaaw rek sëlmal rek daal di wax waaja ne ko yow kat weccat bi ma la delloo woon ëpp na ñaari junne bi may julli laa ko xelaat calculer ko ba dis ne gis na maanaam yaa ma war a dellu ñaari junne li ma la jox dafa ëpp xam nga loolu xaw na doy waar bàyyi na wax jooja man dafa képp ku jañ almasiya aji dox bàyyi na yeddahi ca kanamam menn masalaangoo ko aw sageda wala mu sujoot ala shaqi jëbhatihi ci wàllu jëham bi aw ñaari masalaangoo aw sageda wala mu sujoot ala tayatin ci taxañ taxañu kala buy ben aw tayatayni wala ñaari taxañ taxañu kala dafa taxañ kala bi ci jëham muy ben yoon mu ñëwaat rombalé xat ko ci kaw ben yoon booba muy ñaar min imamatihi ci kalam ñetti masal yépp fala shia di dara alayhi diko war ku fekke da ngay julli am ku bëgg jaar ci sa kanam gaaw nga bamax ko koku yonentu bi def nako su boba koku yàqu sa julli gi ñaarel bi boy sujud dañu bëggoon sa digg jëbi ngay jël ne ko rap ci suusi sa bakkan bi tamit ne ràpp ci suuf si yow nag da ngaa xaw a sujootee benn côté jëbi loolu tamit ba tey jéggal nañ la ko waaye gënut nag wala nga jël sa kaala gi maanaam takk ko ci sa kaw bopp bi ci sa jëbi sujoot ca kaw kaala googa noona te fekk benn yoon nga ko ca ah, rombale wala nga rombale ko ca ñaari yoon da jaral bi ko sujoot ca kaw romb ñaari rombalay kaala ya waaye bu xëppee ñaar rek su boobaa day tekki ne sujootutoo ndax yaa ngi sujoot ca kaw yére booba di kaala ga day mujj nekk ab téeñ te su boobaa ci nga sujjóot dootul wérati moo waral benn taxañ-taxañ lañ la may bu bëree ba bëri ñaar waaye bu ko xëppee ñett ñeent nga sujjóot ca kawam ab téeñ ci nga mujj sujjóot te su boobaa julli ga dootul wérati bàyyi na wax ja wa man wala che adde dara fii xalabatil xay i di ko war ci not ak waccu wal xalasi ak gàll fi salaati ci julli dafa lekk ba regg lekk lu ëpp rek ne ma ngay rukkoo rek far dogal mu gàll walla dem ne ma ngay sujjóot rek far yàlla dogal mu waccu waccu moo xam ne moom loo coowut ko tayut ko su boobaa loola na muy ñàkk a yàqee kooram ga loolu tamit noonu lay ñàkk a yàqee julleem gi moo waral kon képp koo xam ne danga nga gàll ci ci ci ci ci ñàkk tey ci noteel wala nga waccu ci noteel su boobaa bu doon koor yàquwut bu doon tamit maanaam euh, bu doon tamit julli yàquwut buy koor nag ci sartaab di nga gallee ba mu génn dara duggaatut waaye bu duggaatee nag day waral nga fay benn fan euh, mu ngoog bana wax jooja wa sahwul jama ju maamoom yahmiluhu dana heno ko imamu imam faw mu ne ha ila an yakon dara mu nekk min naqsil faridati ci wàññi